Cheikh Mouhamadul Fadal mboolem mbokk yi ñu ngi lay nuyu di la sant tey feddali seen suñu kóllëre gu ñu amoon ci yow tey yokk suñu yaakaar ci yow yaakaar ju ñu amoon ci yow démb tey lañ gën a yokk di la wax ne la mbooloo mi boo ko xoolee xam ne am na ak dolli ko ko am na di la wax ne la la fi newoon bii nga bii bii ba ngay ñëw wuute na ak la fi newoon tey daan wax na nit bu waxi démbam méngoo ak jëfi tayam jàppal te xam na gor pire nga te gor dëgg. moo ko waxoon mbokk yi gor dëgg ngi nii la ma waxoon def na ko. ñëw na. wallaahi gor a ngi nii. kon nag mbokk yi bu mu leen gën a gore bu mu leen gën a gore. jël leen seen i daas fanaanal daas ko fanaanal bu leen sëñ Mouhamadou Fall gën a gore bu mu leen gën a gore lañ ko waxoo lam waxoon def na ko ñëw na mi ngi nii yéen itam la ngeen waxante woon ak moom na ngeen ko def ko falee nii lañ koy gisee na ngeen ko def waxal ak ñoom te kii dama leen wax dama leen dama leen wax ne leen nit su la joxee ndékki bu la digee añ da ko gëm buñ ko falee nii lañ ko gis naa ci yàlla boo leen ko jàppalee yàlla xam na ne doo leen ko rëccu waaw nit ku baax yi nii ku mën a dimbale nit ñi kon man li ma leen di feddali mooy loolu la ngeen waxoon na ko def bu mu leen gën a gore daas leen fanaal ànd ak moom génn leen carte yi wane ko ñu gis ko bu bis baa ngeen àndandoo dem fal ko wasalaamaaleykum. mu ñëw nag mu ñëw nag ci mbooloo mi bi mu fiy ñëw di leen seet si ñu waxtaanoon ne dañoo bëgg sëñ Fallou Mbacké ñëw seet si ñu muy sëñ Galas Kaltoum ci tur yi ko ñëpp gën a xamee ma woo ko téléphone. mu décorosé ma ma ne ko samay mbokki bopp dañ laa bëgg nga ñëwal sa bopp ñëw seet si leen waaye ñëw gi ngay ñëw di leen seet si soxlawuñ ci yow ñaar dërëm dañoo bëgg nga ñëw seet si leen toog ñu waxtaan ak yow jël seeni carte jox la ko te niñ la ko waxee incha allahu rabbi moom lañ koy def defuñ ko ngir politique defuñ ko ngir dara waaye dañ koo def ngir wane ne suñ mbokk lañ jiital te dinañ ko jàppale danañ ko taxaw incha allahu rabbi ba mu am ndam lu kawe njortam da nga bàyyi xel bu baax sëñ Fallou nit ñi génn nii bëri nañ waaye na la leer ni ñi nga xam ne nii yor nañ seen carte di leen woo ngir wooteel la yàlla xam na ni ñoo ëpp ñii fuuf duñ seen morom te ñoo ñoo gën a dëggu te ñoo ñëpp ay kilifa leen te lépp luñ la ko wax danañ ko def incha allahu rabbi ñu la waxee noon nag nga ñëw gis jaar nga ci ay mbooloo yu bëri mbooloo yoo xam ne ñoo ëpp mbooloo mi nga fekkoon fii keroog trop mais sa xol bu sedd nga woow ma déy ma ne ma sëñ Bass est-ce que da mën a jógewaat Dakar bi su àllarba bii bu dee lusee ndax daa am nu ma bëgg a def ak sa mbokki bopp yi ndax liñ ma wan dafa dal sama xel te bëgg naa financé seen seeni jigéen man la incha allah rabbi Mbàkke ni nga ko bëggee dinaa ko defee te nga jëlee engagement ne bis bi bu dellusee da nga ñëw indil leen 3 millions Mbàkke baal teg ko sama loxo pour ñuy gis ko waaw 3 millions mi ngi nii mu wax ne mu wax kàddu yi am solo muy kàddu gor mu ni dana dana jël dana dana mu ni dana dana ñëw financé ay euh, samay jigéen ñi nga xam ni ñoo dëkk Daaru Minam gi muy jigéen ñoo xam ne ni yàgg nañoo sonn doon ak mbootaay gu yaatu ji nekk ci biir Daaru Minam di bale koñ bi di dugg ci euh, kër yi di def porte à porte képp koo xam ne nii am nga jafe-jafe ci sa biir muy loo bëgg ñu financé la ko wala dara ñoom ñu taxaw la ci. amul benn politicien bu mës a yëkkati ñaari dërëm jox leen ko te yow li nga li nga waaw waaw incha allah rabbi maanaam yow li nga leen wax ni Mbàkke su la neexoon nga def ni politicien yëpp di def ne leen bis bu ngeen ma wootalee su ma faloo dinaa ñëw financé leen. waaye da ngeen a bëri rek daan dinaa wane sama bopp maanaam jigéen ñi ak góor ñi waa daaru Minam jëm daaru Xuddoos jëm Médiana biir Touba gi yëpp yéen laay waxal as gor buñ ko lebelee as lu mënoo gor lebalee da koy xam te képp ku la jox ndékki bu la diggee añ sa xer wala daal te sëñ Fallou dafa boole ndékki añ reer jox leen ko waaw daan nag incha allahu rabbi lii du yam ak yéen fii bu neexee yàlla bis incha allahu rabbi nee na nag du yam ak yéen fii lii première part la boo xam ne ni def na ko bis bu suñ borom dogalee li nga xam ni mu ngi koy yóotu mu ngir dem xeexal leen ca assemblée ba lépp loo xam ni mi ngi jëm ci mbiru góor ak jigéen mu xeexal leen ko ba du fa am lépp loo xam ni dana tax dund gi yomb dana leen ci taxaw ku ku feebar mën a faju dana leen ci taxaw te seen mbokk bopp la bokk ak yéen dëkk Touba juddoo tuubaa ñu juddoo tuubaa kon lépp li leen wax dana ko def. mu mel ne jotaay bii jotaayu diine la mën nañu ne mën nañu ne jotaay bi li ko lal dëgg dëgg dëgg diine rek la ak mbokk. te mbokkoo gi itam nag moo waral sëriñ bi li yokk li lu yokk ko soññu sëriñ bi ngir mu jëfe li ko war digganteem ak yéen mooy ay mbokk la ko séqal yoo xam ne itam nag mbokku yu ko mbokko la mbokk yu ko yu mu doyloo mbokk yu ko boole seen bopp te sëñ Mbay Jaxate dafa waxoon sëñ Ablaat ne ko faxal taraw am nga ak yóbbal fax ak raw a des ngir baaxi mbokk dig yóbbal te it ne itte sar yitte jooju itam waral sëriñ bi ñëw fi tey ngir nemmeeku si bu ma juumul ñëwoon na fi bu yàggul àllarba bii passé ñëw fi seet si leen nemmeeku si leen xool lan mooy seeni ay jafe-jafe jafe jafe jafe jafe yooyu am am ci loo xam ne dafa toqoon ci noppam mu ne leen incha allahu rabbi àllarba bii di ñëw danaa jël lenn ci jafe-jafe yooyu teg ko seen loxo ngeen mën cee def li ngeen bëgg sëriñ bi la mu waxoon démb def na ko tey def nga lu jafe nag ci asgor def nga lu jafe nag ci ab jullit ndax dañuy wax ne wax def wala junj def suñu borom rek moo ko mën waaye def na lu jafe def na li gën a foori itam nag ci adduna ndax ñëw na tey lam nan waxoon mu jël ko teg ko seen loxo mel na ne def na seen ay bëgg-bëgg mais sëriñ bi itam indi na ay bëgg-bëgg ay bëgg-bëggi boppam bëgg-bëggi boppam mooy lan dafa jox dafa jot ndigal ci alxalifatul am li tariqatil muridiyya ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu jox ko ndigal ngir mu jàppale président de la République mu koy jàppale mooy président def ko élire mu nekk candidature bu département bu Mbacké bu département bu Mbacké mu nekk ci tête de liste bi président élire ko ngir mu am ndam ci fële nga xam ne mooy assemblée nationale mu soxla majorité à assemblée nationale majorité boobu nag ngir sëñ bi mën koo am mooy lii mu leen lebal ngeen fayee ko seen porte d'armée bi ngeen xam ne moom ngeen yor muy seen carte d'identité nationale bu bis ba ngeen daas ko ba mu ñaw ngeen xam ki ngeen koy jox kan la ki ngeen koy jox xalu xolu hamsatu wasnin la yor ñi ñi jàng xam nañ li may wax ki ngeen koy jox xal bu salim la yor ki ngeen koy jox liñ ko toppee ñun ñëpp jikkoom lañ ko toppee te wax naa la ko démb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan xalidal xalbi lan faddu min xawlik faafu anhum wastaxfir lahum wa saawirhum fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin ni nga mel ba boo wootee ñu wuy si la boo laajee ñu jox la boo santaanee ñu jëfal la alal ju bëri may la ko juddu ku rafet may la ko xam-xam bu bëri mayu la ko li la ko may mooy lan mooy jikko ju rafet kon sëñ bi sa jikko moo waral boo wootee danga gis ñëpp waaye nag dañu am koo xam ne moom moo taxaw ci ginnaaw sëriñ bi jàppale ko ngir lim am mu bëgg ko muy président de la dañu war di def bi nga xam ne président de la république def na ko ci réew ci dëkk bi surtout mu def ko ci réew mi dañoo war a chaque fois bu ñu wax ñu di ko teg baaraam te bañ a xuloo bañ a ŋaayoo ñun waruñoo xuloo waruñoo xeex dëkk biir Touba ñun ay espoir lañ ci Sénégal dëkk bii bi ko sëñ bi di sanc dafa wax ci boo demee ci saadatul muridina fi am daay xayrul mursalin sëriñ bi dafa wax ne lam yaskuni mu dawiru fi maskanihi kon jaamu yàlla ak liggéeyal Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo waraloon sëñ bi sanc dëkk bi sanc googu mu ko sanc nag ñun waruñoo naagu ci lenn ñun dañoo war a am yar am teggin doon espoir waxuma la ci waaye espoir ci adduna bi képp koo xam ne gis nga ñu dafa war am yaakaar ci yow doy loola def la wéeruwaay nañuy ànd ak yar ak teggin jàppale sëriñ bi li mu bëgg ci sëriñ ci dëkkam bii mu def ko bañ a déglu kenn nag am na ñoo xam ne ñu ngi influence ndaw ñi di yi ngir a dugal loo xam ne bokkuñ bokkul ci seen bopp warta dugg ci bopp li ñuy njëkk a dugal ci ñoom mooy bu leen gëm seen i ay kaddu waajur bu leen gëm seen ay kaddu sëriñ te loolu bu jeexee senegal jàmm jeex fii suñu jàmm mooy sëriñ Touba suñu jàmm mooy xool li nga xam ne sëriñ bi bëgg na ko mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi sëriñ bi maa ngi jégg lu baax ci kaddu yi lu ci dëng ngeen xam ne ñun la luy jub ngeen xam ne sëriñ